أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله ككرمه وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجهم واصطن بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله mbokki Ali Imran TV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mboolem téléspectateur Ali Imran TV di leen ziyaar tabarakallahu di leen nuyu ci turu émission boobu di kalimatul xaq ñi koy wax la vérité absolue ñi ngi leen ci nuyu baax di leen ziar tabaarakallaahu di nuyu ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew ñëpp tabaarakallaahu di wax na dikkaan nañ ci émission le ngeen di ci ànd ak seen mbokku daara Aliou Kandji muy am chaque dimanche fii ci Ali Imran TV ñuy jàngat nag léeg-léeg tomb yu am solo tabaarakallaahu ci jàng tomb yoo xamante ni tomb yu mat di fàttali la ndax fàttalante kat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci joxe woon ndigal cëg dundam jëf ko jëfloo ko ndax tabaarakalaa moo waxoon ni bis ni ki tey ku teewe na nga jot li li fi fekke ki ko teewuloon ak beneen xadis ne ku ci xam lu tolloog benn laaya ku ca xam benn njariñ fexeel ba jottali ko ndax jullit kat njariñ moom la ñeexal na ko jël ak fu mën kaa fekk boo góorgóorloo ba dimbali ni ñu jot lee njëriñ yaa ngi bay sawaar ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ma ko waxee woon ci dar sabali la yàlla dafa sarse ak dundam ak njariñ ba mu fees dell mu bàyyi lu bëri ci saxaabaam ya na ko sang boo xee sallallahu alayhi wa sallam mu netti ci ca saxaabaam ya naan ñoom day ayib amut ci ñoom lu dul ne ba yàlla di séddale gët ji cër ñoom ñoo dajeeg cër boobule muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi fa tabaarakallaahu bis dafa wax wax ju doy waar dafa toog ak saxaaba yi ne leen antum fi samanin ulamaauhu kathir wa xutabaahu xalil fa sa yaati aleykum samanun ulamaauhu xalil wa xutabaahu kathir allahu akbar dafa toog ak bis ne leen yéen yéen a ngi ci jamono joo xamante ni ñi fi nekk di ay boromi xam-xam bari nañu lool waaye ñi ci nekk di wax di coow ñu néew lañu mu ne waaye lii ngeen nekk nag bis a ngi ñëw boroom xam-xam yi dañ néew lool waaye coow ko di dana bëri lool xadis bu yomb dimbali la bu yomb firi la nu ñu koy firee dellul daaray Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul dugg ahlu suffa xoolal ci ar-rijaalu xawla rasul xoolal ngir kii waroon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal ku toll ne Ali ibn Abi Talib nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne su doon mën dëkkub xam-xam laa bunt bi mooy Seydina Ali wala nga ne su doon néegu xam-xam laa port bi mooy Seydina Ali te nekkin du ci dugg lu jaaroo ca porte ba wala ak sa pexe yeneen ngay jëfandikoo yonentu sallallahu alayhi ne su doon néegu xam-xam man la Aliyu mooy porte ba Aliyu nga toog mu waxoon ne saxaaba yi ki gën a xam lu dagan ak lu xaraam mooy Maasum nu Jabal Maas a ngi toog déglu rek xool ne Omar ibn Xattaab mu ngi toog ci jotaay boobule Ousmane ibn Affan mu ngi toog nga xam waxoon na ne maa daral Ousmaana baadama maa faala al yawma waxoon na Seydina Omar ne alxaqu maa Omar ay sukaan Seydina Omar ngi toog Babacar bin Saddiq nga xam ne waxoon na ci xadis ne maa talaat samsun ala xeyri min Abu Bakrin Seydina Muhammad neen fi jant bi di fenkee ba fa muy soxee tiimul ku gën Babacar bin Saddiq te Babacar a ngi toog ci jotaay boobu le jotaay boobu kay bëri nay boromi xam-xam xool rek Saadu Nabi Waqaas nga toog ndeysaan xoolal borom xam-xam bu ragal yàlla Abu Musa al-Ash'ari yi moom mu ngi toog nga xam nit ku ragal yàlla ngi noonu ku bëri woon xam-xam kon jotaay boobu le kenn wérantuwul ay borom xam-xam nga ca moo tax Seydina Muhammad ne yéene ngi ci jamono boo xamante ni boroom xam-xam yu bari nañ lool waaye ñi ciy coow waxkat yi ñu néew la ñuy doon lu ñuy wax sang baa ngi toog zaatul ulum mu ngi toog mu ne waaye nag jamono dana dox boroom xam-xam yu néew lool waxkat yi bari lool allahu akbar yaakaar naa ne jamono jooju est-ce que yegg si wuñu ca léeg-léeg nit wax ba yey boppam wala xool beddi boppam te du koy ci biir xam-xam bi ci gën a doy waar nag mooy sànq sa bopp ci biir xam-xam moo tax yonent sallallahu alayhi waxoon ci xadis xadis bu doy waar ne yàlla du fi jële xam-xam rocc ko ci nit ñi lu fi ne mooy day rocc borom xam-xam yi benn par benn kenn ku ci nekk dem yóbbaale la nga yor mu ne bu boobaa nag mu des ñu sànku nit ñi dem di gindeekoo ci ñoom ñu sànku sànkaale leen ma léeg-léeg dañ ci topp ko xamante ni walaw daxalu xujarat dabbin wala walaw daxala xujarat dabbin la daxaltu moo xaa soo ko topp moom dugg ci bax bu dugg ci erreur ngeen ànd ca ak moom duggee ci ba nga ànd ci ak moom parce que dañu topp naka sul noonu Seydina Umar Xattaab mii ma la waxoon sànq dafa def benn jour lu doy waar dafa ñëw ci xeeruñ ci daa ajrul aswad ca màkkatal mukarrama nga xam ne képp ko aj màkk tabaarakallaahu macha allah la ngeen jëflante yàlla nañu yàlla boole Seydina Umar jub xeer wi daan xalaat ci xelam ne ah man daal islaam mooy bëgg a jaaxal dafa delloo ci jamono jaahiliya ñu ne ko lu tax mu ne man damaa gis laataa diin di ñëw ñun ay xeeram ak i yat ak i bant ak yu kenn xamul lañ sampoon di ko jaamu lislaam ñëw dindi fi loolu set wecc bàyyi fi xeer yi ñu di ko jaamu ndax ñu ngi koy sujjootal ñu ngi koy fóon ko def lu ne man daal lislaam dafa may bëgg a jaaxal mu dem yàgg xel mi dellusiwaat ne ko innaka la xajurun laa tadru wala tanfa lawlaa raaytu rasulullah yu xabbil ko maa xabbaltu ko mu ne ko yow xeer nga rek ajur aswad la sayyidina Umar doxtaan nag ne ko yow xeer nga rek munoo maa jariñ ci foon gi ma lay fóon munoo maa lori su ma la ñàkkee fóon waaye nag doowutoo danse garaawutoo su ma gisul woon Seydina Mouhamed di la fóon kon du ma la waaye gis naa yi Seydina Mouhamed di la fóon dax ne dapp xeeru fóon na ko it nag euh, ci ci euh, bayatu ridwaan fañ doon jaayante ci ron garab googule benn suur saxaaba yi ñëw wër garab gu mu ñëw di joxe nañ ko dagg saxaaba yi ko dee defal ndànk yaa ngi def erreur de mu ne ko xam ah, mu leen sa garab gi nga xam alxuraan na ko nga jàng ko ci alxuraan ngay xëy benn suur di joxe ndigal nañ ko dagg mu ne nañ ko dagg ndax damay ragal ni ñu fiy ñëwee di ko wër di ko ziyaare nii bu yàggee mu yóbbu ñu ci jaamu xërëm te loolu lay bañ allahu akbar xoolal borom xam mu toll noonu rek xam-xam lay jël di jëfandikoo lépp loo xam ne dafay wutal yàlla nend ci ko suuf mu di ko dàq allahu akbar yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon lu mel noonu sa euh, Mu'aaz ibn Jabal mii ma la nettali daf ko war a affecté mu dem fu ñuy wax yaman yonent sallallahu alayhi wa sallam musuta yebal nit ak ku mën doon lu def laa jox tasliya boo yóbbaale mu yebal Mu'aaz ibn Jabal ne ko yow Mu'aaz yaa ngi war dem yaman waaye kaay ma wax la mu jox ko ay ndigal bokk na ca lam ko joxoon foo fekk jirim taxawee ko taxawaayu baay foo fekk arma la jigéen joo xamante ni boroom këram dafa génn àdduna mu yorum njaboot taxawee ko taxawaayu jëkkër foo fekk ko fa amul mbokk nekkal bara duraatam mooy dimbale ko mu nekk mbokkam ko akbar jox ko ay point yu baree bari ne ko nag waaye kaay bala ngay dem ma ndax soo demee ñoom ñi wax la dara soo dee attewu fooy attewoo maasum na jabal ne ko ma xool alquran wax ma àtte ko ca ne ko yaa rasulullah su ma fa fekkee luñ ma laaj mu ne ko damay xool alquran lu mu wax ma àtte ko ca yonent bi ne ko boo ko gisul ci alquran nooy def yow maas mu ne ko ma xool ko ci li nga wax yow Seydina Muhammad ma xool ko say la nga ca ma àtte ko yonent sallallahu alayhi wasallam ne maasum nu jabal soo ko gisul ci sama xadis yi nooy def mu ne ma xool li boroom xam-xam yépp dëppoo ma àtte ca ak ñoom mu ne ko soo ko gisul nooy def mu ne ko ma xool li nga xamante ni xewoon na fi ci histoire wala nanga ma nattale ko ci àtte leen ci ah, nag maas da xam ne ponkal nga ndaanaan nga borom xam moo tax mu waxoon saxaabe ne leen ne ki gën a xam lu dagan ak lu xaraam mooy Maas ibnu Jabal ki gën a xam lu xaraam ak lu dagan mooy Maas ibnu Jabal penc mu nekk borom xam-xam nga fa fa tabaarakallaahu moo tax yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam xadis boobu la ma tàmbalee woon firi na ko ci biir yi saxaabaam wallahi ndeysaan firi na ko ci biiru saaba maasum na jabal doxee point yooyu moo tax seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàgg na orienté orientation boo xam boo ko jàngatee daf lay jaaxal yabal na général jox ko armée muy guerre yi ñuy dox bala ñuy départ yunus sallallahu alayhi wa sallam ne ko kaay mu ne ko soo dee dem mu ne ko ku bugg la bokk ci xaso bi bu sa yoon nekk ci moom na nga ko bàyyi képp koo de xeex ak mu daw nang ko bàyyi bul fekk garab gu am njariñ nit ñi di ko jariñoo nga di ko yàq bul fekk xale innocent la bul fekk gone nga di ko rey ndax yunus salaa sallam ku bëggoon gone la yunus salaa sallam ku bëggoon gone la nettali naa la benn jour wax na fii ne euh, suñu yaay umu euh, salamata ne ko gardel ma sama porte bi nekk bëkk ni bu kenn dugg ci bëgg gi mu bëgg xale bi mu nekkee di ko garder rek asan ñëw bi mu ñëwee suñu yaay umu salama ne ko mënuma laa téye waaye nag sa maam neexoon na bu kenn dugg bis ni tey mu dugg rek ba mu duggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko mu fekk benn malaaka mu ngi toog yor melokaanu doomu aadama loolu lu yomb a jàngale la te lu wér la ci siira mu mu yoree melokaanu doomu adama asan ñëw toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam malaaka bi xool ko ne ko kii bëgg nga ko de mu ne ko waaw mu ne ko sala la mu ne ko sama sët la mu ne ko na nga xam ne saw xeet ñoo koy rey ëllëg mu ne ko ah mu ne ko ñoo koy rey ëllëg de na nga xam ne hit nag fañ koy rey place sàngam la jox ko yam koy jox noot yam koy jox ndeysaan génne suuf won ko ko mu jox ko suñu Umu Salama mu takk ci rafu séeram moo tax yonent ku bëggoon xale la l'istidraab benn jour mas nay dox ci mbedd mi ay xale dab ko rek yéeg ci kawam ndax dañoo gis Ousseynou ak Assane di yéeg ci kawam rek ñu yéeg ci kawam naan ko suñu giléem gi yonent sallallahu alayhi wasallam di naxante ak ñoom di négocier ak ñoom di négocier ak ñoom di naxante ak ñoom ndeysaan ba xale yi bàyyi ko yonent sallallahu alayhi doo di continuer doxam moo tax ku bëgg woon xale la l'istidraab ba tey fekk na benn xale boo xam dafa yoroon a picc dafa yoroon picc picc ma feebar xale bi sopp gi mu sopp picc mi feebar picc mi daf koo jàppaale yonent sallallahu ko ne yaa Umayru maa saa faala nu xayru wallaahi ndeysaan seeti Omar ci piccam moomule moo tax ba muy yebal général bi ci armée bi daf ne ko nag bul rey xale maanaam mu ne ko bul rey jigéen bul fekk fu nit ñi am ndox mu nit ñi di jëfandikoo it nga di ko yàq allahu akbar xoolal yi mu ko jox rek garab goo nit ñi toog wala mu meññ bul ko laal képp ko xam dafa ñu ci xare bi daw bàyyi ko bul fekk kilifa ak labbe wala nangam boo xam ñu ngi ko wër bokku ci xeex bi nga di ko rey xoolal yooyu rek kooku ku bëgg jàmm moo koy def moo tax sallallahu alayhi wa sallam ku ma yebal dana la jox tasliya boo xamante ni bu dooy waar la boroom xam-xam yooyu nag waroon sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam-xam ba nekk san muy wàcc di di ko doonante di ko doonante ba ci génn góor gu baax Ahmad ibn Anbal amoon na benn doom bu jigéen bu baax radiyallahu anhu mu nettali imaamu Shafii imaam Shafii na mu meloon ci mbaax ndax imaam Shafii kat ku ragaloon yàlla la ku juboon la ku baax la waxoon na ida isa zukira al ulama u fa maaliko nañ ma saqibu imam Shafii nee na buñ dee dajale borom xam-xam yëpp di leen waxtaane imam Malik mooy biddiw bu leer ba mooy borom xam-xam bu mag ba imam Shafii mu dafa siiwoon ca jooju jamono nag ca ragal yàlla ak jaamu yàlla Ahmad ibn Anbal doom bu jigéen dégg wax jooju ne man daal dama bëggoon papa dimbale ma dem seete ji ko nu mu mel mun a xam mu ko dama bëgg nga ma ma def ko ngan xool kii ngeen waxee mel nan la waaw ah, baax na mu dem fa yàlla dogal guddi jot mu tëdd ci jàkkaarloog imam Shafi imam Shafi reer ba ba suur reer kë ba suur këll jaaxaan ci lalam nam tëddee ne sens ko ndaw si taxaw di ko xool rek mu di ko xool bu bës set mu ñëw ne papam ne ko mais papa ki nga may ni baadoolo pire la mu ne ko deeruwaay mu ne ko baadoolo pire la parce que lekk comme mbaam li ma gën a ci moom guddi gi dafa tëdd di nelaw bu bës set wala ba li ma gën a yéem ci moom muy jug di julli jàppuwul xanaa di julli mu ne ko mais bon fooguma ne noonu la demee ah mu ko ah mu ne ko fooguma ne noonu demee kii du dara ne ko ëpp naax mu ne ko kii du dara allahu akbar mu ne ko bàyyi ma ma dem ak moom laaj ko li nga ma nett lii ndax nu la demee wala déet mu ñëw ci imam Shaafi ne ko bon sama doom bu jigéen bii day daf la seet si woon ngan mu ngi fanaan sa pegg fii nee na borom xam-xam bi mu la déggee ngay nekk borom xam-xam ak ragal yàlla gi jaamu yàlla gi la woon seet si waaye neen li mu ko gis daal lu ko jaaxal la mu ne ko lu mu gis mu ne nee na yow bi ngay lekk biig da ngay lekk ko mbaam lekk ba suur këll na ko waaw yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ku yàlla wërsëgal ñam lekk ca ba suur ngi sant yàlla moroom lekk ngir sant yàlla mu ne ko nee na dafa ngaa fanaane tëdd ba ba set wecc gisu la ngay naafile benn yoon na ko waaw naafile yemul ci julli ay rakk rek mu ne ko naafile yemul ci sëgg si ji rek def lu baax la naafile la mu ne ko xadis boobu yonentu salaa salaam noonu wax xale ba ci laa fanaana naafile am na ci riwaay boo xam dafa ne génne naa ci téeméeri masala am na boo xam ne génne ci ñeen fukki juróom-ñett fukki masala ñeen fukki yenn ci lu xaram ñeen fukki yenn ci lu dagan am ci riwaay boo xam dafa ci téeméeri masala yi jëm ci lu dagan yi jëm ci lu xaram mu ne ko nag ci hadis bi ci laa fanaan nga hadis bu yëndu salaa sallam waxoon xale ba ne ko yaa umayru ma faala nu xayru mu ne ko ci laa fanaan ci laa doon ball laay masala ba mu ne ko nee na bi nga yeewoo it dangaa jóg julli te jàpp wuloo loolu it xajut suñu xel ko ah non demeewul noonu bi may tëdd damaa yoroon jàpp ci loolu laa fanaane xalaat fanaane xalaat ba yeewu njàpp la tujul ma yeewu ci jëm di jàpp naa julli ci ak moom njàpp bu tujul mën nga caa julli mu ne ko waaw nii la mën a demee kay waaye niñ ma nodd yi ma jox moom demeewul noonu boo dee jàng wax ji da ngay gis ne nit dowul lu ñëw rek mu conservé ko nit dowul lu ñëw rek mu gëm ko alxuraan waxoon na ne in jaakum faasiqun bi ba fatabayyanu su ma ko dee firi damay wax ne même ku baax bu la waxee dara rek vérifié ji ko waaye kuy def lu di loo dégg ne dëgg la lu ñu wax nga ne naa ko gis adduna day tukki ma tax Yunus sallallahu alayhi waxoon na ci xadis na jamono ngi ñëw dangay ngay doyloo li nga gis moytu ku li nga dégg wax ju wax ju doy waar la Yunus sallallahu alayhi wasallam nee jamono ngi ñëw nit na doyloo li mu gis moytu ndiku li mu dégg bëri na yu ñuy digg ñu koy wax ay faux débat la rek ay prétexte yu ñuy teg ngir yàqi ko dara nit wala yàqi ko dara imam Shafi nag ba ko waajin ba ko Ahmad am naan bal ñettalee loolu ñëw ci doom bi ne ko ah wax dëgg yàlla lii de moo fi am ndax lii la wax kon gis nga kon boroom xam-xam loon waaye ko ragaloon yàlla la ñii borom yi xam-xam yi war nañoo doon ci loolu ci imam Shafi ragal yàllam nga doon ko xit nag ci njubdu bëgg lu baax xam mu néew mu bëri mooy la nga jëfe maa umil xam-xam kat mooy la nit ki jëfandikoo. Euh, imam Xasaali rakkam ju baax jooju leen ndeysaan xam ne moom it nit ku ragaloon yàlla la ñoom seen waajur dafa teel a génn àdduna bàyyi leen ñi ay jirim imam Xasaali nag di boroom xam-xam bu mag ci ñi nga xamante ni ay philosophe islam yi sax bokk na ca boobu Ibn Rusdi ndaanaan la benn suur ci xam-xam bi ko yàlla may am ku ko laaj ci wàllu xaydu wàllu reegal deret bi jigéen di gis aadatan par weer bu jaaree ci cycle yu normal yi mu muy julli ji fekk mu ngi dajeek moom mu laaj ko ko mu tontu ko ci masala ma ba mu ko tontee ne dem ba kabbar di julli xel ma ne yar na ci lim tontu ndaw sa déggal génn na julli gi xaat mu ngi ci waaye xel ma génn na mu génnee nag ndaw si ñëw euh, li ko ndaw li mu tontu ndaw si mu ñëw ci xel ma fekk rakkam ma nga ca gannaaw di julli ci gannaaw mu xool nee na ci biir julli gi muy gis yàlla may ko kachu muy gis deret ji di sottee ko ci jëree imam Xasaali nee na mu sëlmal arrière su nga leen arrière ñibbi julliwaat wax fa wax jooje taawil ko yóbbu ko ca imam xasaali ne ko yow sa rakk ji sax daf laa contre bi ngay julli da nga kàbbare dafa sëlmal arrière ca gannaaw ñoo xam yàq rek lañ mën wax ju ñaaw rek lañu bëgg gis daal lu doy waar bañ siiwal ko loolu rek lañu yàkkamti bañ gisee mu sëlmal taxamul demee rek ñaa di ko firé na leen neex dem siiwal ko nettali ko imam xasaali ñëw kalaame ko yaayam ne ko waxal ci moom damaa ñëw mboolum yëpp topp sama ginnaaw maa ngi ñu bokk ndey ak baay mu ñëw di ma woon ginnaaw bañ a julli sama ginnaaw loolu nag laa bëgg mu wax mu wax ma fu ko teg yaay ji woo ko ne ko waa baax na danaa waxtaan ak moom woo ko def ko def ak moom table ronde ne ko sa mag daf maa nettali ne ba ngeen dee julli dafa jékki mu yàgg gis dagg julli gi dem ci gannaaw di julli lu waral loolu mu ne ko waaw kii mënumaa julli ci gannaaw parce que jamono ji mu julli boobu julli gu baaxul mu ne ko déedwaay mu ne ko julli gu baaxul ndax deret jaa ngi sottee ko ci kaw mu ne ko deret di sottee ko yow nga mën koo gis ñim jiite kenn gisu ko waaw loolu am de ba fa julli boobu dara jàng so tekk joom te xam naa dara ji comme ni mu àgg foofu julli ko baaxatul moo tax ma réer man mënutuma jiite yaay ji waxat imam xasaali ne ko déet kaay moom nee na dangaa kàbbatu julli mu gis dara di sottee ko ci yow dara jooju mu gis ci yow ci laa xam ne sa julli wérutul mu arrière di julli allahu akbar allahu akbar ñaari ndaaraan ndaje ma ko waxee loolu imam xasaali xalaat ne ko wax na dëgg bi ma dee dem ci jàkk ji damaa dajeeg nit jigéen mu laaj ma ci mbiru régalam ba ma ko tontee ci masala ba nag ma dem ba kàbbar julli sama xel dellu ne ndax li ma ko tont seet naa ci yàlla ndax li may tontu su ma ko ëllëgee mal xam su ma ko yàlla dee laaj danaa ko mën a lay mu ne xalaat googu ma doon xalaat julli kooku la gis dara ji sottee ko ci man loolu tax mu sëlmal moo tax mu arrêté dem ci ginnaaw wax na dëgg xëy na comme moom moo ko gis sant yàlla moo tax gis nga kon borom xam-xam yi fa tabaarakallaahu ñi ngi tabaarakallaahu di nuyu ñëpp macha allah di ziar ñëpp tabaarakallaahu di baalu xaq ñëpp it nag ndeysaan di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mii doole dëgëral yàlla na doole dëgëral diineem ji borom xam-xam waxoon na que li kulli xatilin naaxiatun yanaxnahu lépp lu daanu ci penc lépp lu am problème ci penc gis nañ ko taxaw di ko défendre fa laysa ala diinil muhaymini naaxihu diine yàlla ji nag moom fii ñu toll jafe na loo ñu gis ko dimbale daanaka dundee ko moo ëpp sax dundal ko yàlla ñu yàlla boole boole leen ci ci ñu koy dundal moo tundi ko ci ñi koy dundee que dundee diine kat bokk weesuwul soppi loo xam diine dagana loon na ko soppi loo xamante ni lislaam gërëmoon na ko nga soppi ko bëgg ko moytu loo ko société bi fekki loo xam lislaam bëgg ko gërëmu ko nga bëgg ko ci biir société bi sukkandiku ci sa biir xam-xam kon nag góorgóorlu ba xam-xam bi nga yor rafet ci yàlla rafet ci jaamu yàlla rafet ci jëf ba ëllëg boo dajeg yowmal xiyaamati nga mën koo lay ndax yonent sallallahu alayhi ko waxoon na ci na ku yàlla jox xam nga nay ca xam ba jàpp ko téewu ko ëllëg yowmal xiyaam yàlla da la lexal sa laxaab ci laxaabi safara yi naka nuunu it koo xamante ni yàlla daf laa jox xam nga falsifié ko ngir chèque bu ñu lay bindal ngir intérêt doomu aadama ngir daraje doomu aadama ngir bëgg-bëgg doomu aadama tax nga falsifié wax yàlla ak subhanahu wa taala la kon nañu fexe ba xam-xam bi mu ànd ak ragal yàlla loo yàlla waxoon ci alxuraan wattaqullaha wa ya'lamukum ragal leen yàlla moo yokk seen xam-xam moo yolli leen xam-xam kon ya rabbi zidni ilma yàlla nañu yàlla boole doole xam-xam ñi ngi ziar yëpp tabaarakallaahu di nuyu eh, Abdallah mii ma jàkkaarloog tabaarakallaahu di ko ziar bu baax di nuyu Pape Doudou di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla doon leen dëgëral ñoom tabaarakallaahu équipe bu am solo lañ fu ñu toll ñu ngi jàpp ci émission yi ndeysaan di jëf seen kem kattan den dokkale baax ci taxawaay bi waaye nag lépp aw yiw la rek taxaw ci lu baax la yàlla yàlla taxaw seen mbir taxaw seen àdduna yàlla boole leen ci ñi nga xam ne leen a ñoŋal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu